lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko lislaamaa ngi ni yàllay sabuur doo sàkku ngaramam yooneen sa soppe waa Mousty TV dañu ñëwoon seet si benn seydaa ci Seyda yi Seyda ñu bàyyi la nga nuyoo te présenté waale téléspectateurs yi asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam euh, soxna si ñu ngi lay fay euh, di nuyu téléspectateurs yi di sant di gërëm di sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu di leen fay euh, di leen sant di leen gërëm Seyda dañu bëggoon xam tey journée mondiale de la femme yow nan nga ko gisee. waa alhamdulilah santaat yàlla rek julliwaat si yonent bi sallallahu euh, di ci gis suñu bopp en tant que ay jigéen mais tamit euh, di gis ne am na solo torop parce que le fait que ñu ne dañoo jël benn bis wala ñu ne dañoo jël benn semaine. jagleel ko jigéen ñi dañ koy sante yàlla parce que suñu xoolee suñu demee ba àdduna bi tey ñu dem ba gis ne jigéen war nañ ko sargal loolu yàlla mi ngi ko jaarale ci lislaam parce que avant islaam jigéen considéré wuñ ko mooy dara mais islam moo ñëw yëkkati jigéen valoriser ko ñu dem ba àdduna dem ba toll foo xam ne Euh, yaakaar nañ ne ñu ngi soog a xam ne jigéen dafa am valeur te alors que ne islam tudd na ko ça fait des siècles yoo xam ne islam tudd na ne jigéen amal lu ko ëpp valeur parce que sooy xool ci alquran yàlla dafa jël saar tuddee ko jigéen mooy sootu nisa kon yaakaar naa ne keneen ku ñëw ne day màggal jigéen rek ci alquran wala ci islam nga ko tibbee kon loo tamit dañ ciy sant yàlla xam ne tamit euh, dëgg la jox nañ jigéen ca ci benn semaine wala ci benn bis mais alquran islam moo njëkk a jigéen islaam moo njëkk a jox jigéen cër moom mi jël lu toll ne saara alquran tuddee ko jigéen waaw kon dañ ciy sant yàlla gis ci suñu bopp xam ne lépp rek yàlla la kon dañ ko ko war a delloo ci côté boobu euh, dañ ciy santaat yàlla comme li ma wax rek parce tey jigéen su demee ba yëg boppam islaam moo ko waral euh, te islaam moom moo wax ci alquran yàlla moo wax si alquran baad auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim almuminuuna walmuminat baaduhum awliyaau baad euh, ba ilaa axiril aay yàlla nee na jullit ñu gëm yàlla wala ñu gëm yàlla ñu jigéen ñi ak ñu góor ñi ay allié lañu te si lan la ñuy nekk allié mooy dañuy jëflan dañuy diglante lu baax di terewante lu bon te dañu xam ne àdduna pour dara baax il faut mu am ñoo xam ne dañuy jóg takk seen euh, ndigg di jëf ay jëf yu baax te bokk na ci loo xam ne jëf yu baax bokk na ci jëf boo xam ne day développé day indi développement ci réew indi ay avancement parce que nit ki mënoo jaamu yàlla fekk yow amoo ci loo amoo ci loo dëgër wa euh, amoo ci comme nu ko olof di waxee amoo ci loo jàpp mu dëgër kon islam moom moo santaane ñu jaamu yàlla mais tamit moom moo santaane ñu liggéey te tamit toog di xaar euh, góor góor yi dëgg la macha allah bëgg nañu def lépp mais mënuñu te islaam tëjalul foofu jigéen buntam nee na lépp loo xam ne nit ki mën nga ko def pour mën a see sutur la wu mën see jaamu yàlla kon islaam may na la loolu l'essentiel rek bul teggi cadre islaam lim la sant mooy ci wàll orma yi nga xam ni islaam jox na la ko fi nga war a commencer ak fi nga war a yem parce que islaam système de vie yàlla bàyyiwu dara maa farraqna fil kitab min sey lépp loo xam ne dafa war a doxal àdduna islam tëral na ko ça fait des léegi nag li ñu sonal mooy dañ ko fee teg mais lépp loo xam ne war nañ ko mën a def pour suñu dund jaar yoon pour ñu mën a dund dund bu naat ëllëg ñu dem yàlla gërëm ñu loolu islam bàyyiwu ci dara kon dañoo gis ne pour ñu mën a jaamu yàlla jaamu yàlla bu jaar yoon il foog ñu am taxawaay boo xam ne moom dañ taxawoo suñ suñu wàllu société ci loo xam ne ci wàllu éducation wàllu santé wàllu lépp loo xam ne daal day day day delluwaat ci wàllu développement rek islam sant nañu ko pour ñu taxaw ci parce que loolu bokk na ci lii tax islam ñëw parce que islam dafa ñëw pour ñu aar bakkan pour ñu aar alal mais tamit pour ñu aar euh, diine yooyu nga xam ne islam dafa ñëw ay valeur la ay mbir la loo xam ne moo tënk àdduna islam dafa ñëw pour ñu pour ñu aar ko kon daf cee bokk loo xam ne lii aar xel tamit surtout te xam nañ ne xel euh, bokk na ci li koy aar mooy dund dund bu dal dund dund bu sell di ko dundee di ko jëfee ala kulli xaal islam bàyyiwul dara. nan nga gisee euh, jigéen ñi nga xam ni bés bi bu ñëwee dañuy bëgg a yamoo ak góor ci lépp ci kilifteef ak ci lépp noo gisee bés bi Seyda. waa alhamdulilah euh, ni ma ko gisee xëj na benn juumte la. boo xam ne xëñ na ñenn si ñun ñu ngi koy doxalee parce que comme li ma wax rek sànq ci ginnaaw mooy benn bis xëte xëñ na la ay nit xalaat ne war nañu see màggal mais yàlla mi ñu bind indi ñu kaw ci kaw suuf ci aaya alquran la euh, euh, saaru alquran lëmb la jël màggalee ci jigéen ba pare di ñu jàngal ne jigéen ala kulli xaal foo ci toll chaque jour dañ ko war di màggal cër boobu yàlla ñu ko jox ñooñu na xëñ na juumte la ñuy def parce que jigéen yàlla dafa bëgg jigéen euh, chaque jour ñu koy yiir xam nga ñun dañoo jum di ñu xamal ne kilifteef la alors que ne du du kilifteef yiir la parce que jigéen sooy xool su juddoo si ay waajuram dañ naan yaay ak papa ñoom ñooy kilifaam ñoo warlu ay soxlaam su demee ba toll ci denc wala ci néegu sëy ñu yëkkati benn góor teg ko ci loxoom ne ko yow kat yow la soxla bu mu xiif bu mu mar bu mu rafle yow yaa nekk ci wàllu sécurité chaque jour rek islam day bëgg di couvrir jigéen mais nag léegi comme que doomu aadama euh, parfois yàlla day am nu mu tëralee ñun tamit ñu foog ne xëñ na am na neneen nu gën ni yàlla tëralee te yàlla mi nga xam ne moom moo ñu bind xam ñu indi ñu kaw suuf bind jigéen bind góor xam li ñu mën xam li ñu mënut moom li mu tëral loolu rek moo mën a arranger ñëpp leneen loo xam ne def nañ ko te bokkut ak li yàlla tëral dañuy dund dundu bu metti xëñ na kon côté boobu soo gisee ñu koy euh, ñu koy wax xëñ na ñàkk xam moo tax mais yàlla moom moom moo ne ar rijal qawwamuna lan nisa yàlla dafa ne góor moom moo war a jiite jigéen mais ci naka parce que yàlla nee na bi ma faddala allahu baadukum ala baadin wa bi ma anfaqu mooy yàlla ngëneel boo xam ne def na ko seen diggante ak tamit ñi nga xam ne ak tamit ci li ñu dépensé dépensé mooy lan exemple côté boobu suñ ko doon euh, leeral Euh, wàllu dépense jigéen bi mooy wàllu lekkam naanam solam ak euh, sécurité am lépp ci góor bi la war jigéen kon su génnee defi ko pour wàllu jàppalante la rek mais du force pour jigéen bi def ko te tamit génnaat ci biti wala ngay opposé wu ak góor loolu ay risques yu bari ñoo ci nekk parce que góor ak jigéen duñu benn laysa zakar kal unsa yàlla nee na góor ak jigéen duñu nekk benn te duñu mës a nekk benn kon suñu jógee ne dañuy euh, waa wax wàllu parité wala ñu foog ne euh, ci ci wàllu kilifteef dañ ko war a bokk wala jigéen am na fu muy toll moom mooy ilif góor jigéen loo mun ci am noo mun ci mel doo mës a nekk kilifa doo mës a ilif góor loolu mënul nekk ci ci manière nag biñ koy waxee Euh, mooy doo mës nekk ne yow yow daal en tant que yow sa jëkkër yéen a nekk wala yow ak sa papa yow yaay nekk kilifaam noo munti mel loolu musul mënul nekk su ñëwee nag ci cadre liggéey yàlla mën na la nattoo nga nekk njiit eh, ci benn liggéeykat jiite ay góor loolu liggéey bi moo ko laaj mais pas yow personnellement yaa ko incarné kon côté boobu ñu ñu ñu bàyyi ci xel yàlla moom moo jël kilifteef bi dénk ko góor pour wàllu sécurité jigéen bi pour saa yi soxlaa parce que sooy xool ci wàllu bindin góor moo ëpp physique moo ëpp doole moo ëpp kàttan jigéen loolu yëpp dafa bokk ci xikma yàlla bu mu mooñaaleeg doomu aadama loolu moo tax mu def góor mu nekk jiit muy muy yiir muy sàmm muy sécuriser jigéen mais pas ci wàllu kilifteef loolu moom yàlla moom moo ko tëral te moom xam na xikma bi tax moom mu def loolu waa Seyda looy tëjee ñu bàyyi la nga tëj waaw di dolli sant yàlla di di leen ñaanal di ñaan yal na yàlla barkeel seen tele bi yal na yàlla barkeel liggéey bi ñun dañ ciy gis suñu bopp bu baax te tamit di ñaanal euh, suñu ustaas bi nga àndal parce que ñoom tamit suñuy xudd walla ñu ñoom suñuy xudd walla lañu di ñaan yal na yàlla def jàmm ci dëkk bi yal na yàlla taxawu ñëpp Euh, euh, vraiment ñëw bi ngeen fi ñëw kontaan nañ ci bu baax a baax parce que journée bi gis nañ ci suñu bopp yàlla def na amoon na sax benn daje bu ñu waroon def yàlla def ma fàtte ko ndekete yàlla surprise bi la nangu woon moo tax amoon na fu ñu waroon dem pour ñu ñi jiite domaine bu mel nii am na daje bu ñu waroon def fenn instant bi mi euh, daje baa ngi am mais xëñ na yàlla lii la tuddoon ñu ngi sant di gërëm di gërëm doyen Diouf mi fi fekk mi ngeen fi fekk ak suñu waajur ak personnel bi yëpp vraiment ñu ngi ñaan yan nañu yàlla jàppale yan na yàlla taxawu ñëpp yan na yàlla def euh, sëy yak njaboot yaag góor yaag jigéen ñi mag ñaan ndaw ñëpp yan na yàlla def barke ñi fi jógee àdduna ñi fi génn àdduna tamit ñu ngi leen di ñaanal ku mel suñu mag Zeyna Fall ak Maria ak ñu mel ne ñoom ñu ngi leen di ñaanal yan na leen yàlla jéggal yan yàlla def seen bàmmeel nekk seen noflaay yàlla sañ na ko mën na ko yan na ko yàlla def ñu kontaan bu baax si mursid wa axiru ngi jooy jugleen daalal ko ngi suux jugleen suuxat ko jooy jugleen daalal ko buur jóg leen suuxat ko ni yàllay sa buur doo sàkku nga raamam yooneen sa soppe